nuy naa ñëpp fii laay tàmbaleeg yéen ci seen revue de presse yëglekaay bi ne mbaal ga ca géej gaa ngay wéy di jàpp di napp yëglekaay bi ne ay gros poisson ubbil yéenekaay bi njiitum réew mi président Macky Sall parti bi mbii di Benno Bokk Yaakaar yëglekaay bi ne fi mu toll nii tembe ma ngay bëgg a fees laa la wax dell ak waa opposition bi ubbil yéenekaay bi maire yaa ngay ral yéen ni male ma ni ñu doon xas laa la wax Benno Bokk Yaakaar di jongante ñoom ci gox goxaan yi def ay caravane meeting fu ne laa la wax di xas njiitum réew mi président Macky Sall bi ne ñenn ca ñoom laa la wax ña ngay dem am ca moom libération yéene ni ma da wax rek xas ko démb tey nga ànd ak moom loolu da gis ubbi yéene bi ma ne am na laa la wax ñaari maire yu yi ak wàllu yoo xamante ni nii tembe dem nañ wàllu ju njiitum réew mi président Macky Sall ngir ànd ak moom ma ne lii de mooy foofu cay dëkk bi ñu ne di askanu sunu gaal laa la wax gëm-gëm yi ak ñàkk wax démb xëy weddi ma ne dafee tumuranke laa la wax libération yéene ni ma ci jamono xamante ni moom moo di politique bi lée ci jamono ji ay maire am di dem ca njiitum réew mi président Macky Sall dàmbuj laa la wax xam nañu ma àndal ñëw ci yeewi askan wi ni ca sëmbax laa la wax dugg ca neeneen dootuñu ca génn ay akon ah yeewi askan wi yëglekaay bi ne am na gan dàmbooj nga ca biir xëtam mu njëkk biir solo yéen kaay am na taal laa la wax bu fës ñëw ni ma le premier puits de production forêt teenub gaz yëglekaay bi ne na nga noonu la ñuy mi la nekk laa a gudd gën koo yaatu dootuma ko gis cent cinquante mètres de hauteur d'eau laay laay la ndaw gudd xuufi de presse di jour a ko xamle ñoom daal ña ngay fësal ak di xamle naka la def li nga xamante moom moo di gaz bi le ba man koo jëriñoo jumaa yi grand mosquée ja yëgle bi ne ñoo ngi koo ubbil yéene bi mi président Macky Sall ginnaaw quatre ans de travaux ne ubbi nañu buntu jumaa ja wax ci kanamu njiitum réew mi président Macky Sall moom njiitum réew mi ak lu mu jàpp-jàpp ci wàllum wér gi yaram bi wàllum santé bi di ca def la mu mën ubbil ko ba nëga ni ña ngay def lanu mën ca hôpital bu Louga ba yëglekaay bi ne fi toll nii service chargé des urgences rek ay fonctionné ca Louga ubbil yéenekaay bi ndax sage-femme ya lànk kandaar la def nii fii bàyyi wunu laa la wax libéré wunu seen naataango yi nga xamante ñoom la ñu ngoy avril bii nu génn ci coowul ki nga xamante moom moo di asu soxna li fi xewoon tey askanu sunu gaal saa su nekk nuy wax ak àddu ci mbir yi fi xew masul gumba nit yi dañuy wax rek di ratatati rek xamuñu dara ci li ñuy wax mbir mi daal luus na mbir ma luusoon gën naa leer yëglekaay bi di libération yéenekaay ni ma moom la mbir moo di mbirum xale bii ñu faat laa la wax dëkk ca fa nga xam ni moo di bar ñi di woo ci turu Anta Njaay am juróom-ñetti at yëglekaay bi ne corom bu waaw wax na laa la wax la mu fësal xam le ko moo di moom nee na moom ci jëmi boppam ci ay loxoy boppam moo njëkk ba ma Anta Njaay ci miir bi corom buub ne laataa faram yi di ma moom ba di ko xooj eh, way no sàmm ndax lan xale bi da leen a gis rek ñuy sim di def naka tudul noonu rek képp dong ndax loolu jar naa raye ci koo xamante ni laa la wax daa gis am mbokkam daaw dugg ci ay tabax muy coro njaay waay waay xale yàgg naa def loolu sax gis magam mbaa ku dëkk seen kër daaw dugg ci tabax ñu daaw dugg fekk ko ngir xam li xew lii de moo tax Anta Njaay dem fekk ki nga xamante ni moom moo di coro mbuub ak ki nga xamante ni moo di mëma ca tabax yax ñu tiit faat ko yëglekaay bi ne fi mu toll nii tembe ñoom ñaar ñëpp defeere nañu leen doy na waar yëglekaay bi ne ma ña nga ñoo di moodu moodu ya nekk la ñu bëgg fësal ko xam le ko moo di askan sunu gaal waa équipe ci match bu amical bi nga xamante moom la gaynde yi di wër na ci boole Italie ndax kat ñun donoon na mag sunu gaynde yi bëgg leen a gis wane sunu mbég sunu cofeel fii ci Italie yann fii ci askanu sunu gaal ñu dellu siwaat yëglekaay bi ne boo wattuwul laa la wax korite dina sap-sap ci borom kër yi ndax xaalis laa la wax ñàkk gi nga xamante ni moom la ñàkk ci réew mi dund gi seer ci réew mi ginaar seer ci réew mi soble pomiteem ni ko danduma ci réew xam le ni la ñu gisoon daaw jéeg ak daaw ko ren ndax ñàkkum xaalis mooy korite gi ne doy waar lool ci borom kër yi ndax lañ cay jëfandikoo lépp a cher ah! moo njëngeen yeeg jaañee ni fu nu jëm bu ginaar amul ci réew mi moom a yëm jaaxal ma si laatir bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen de presse wolof ak Fall Damel jagéen jëf jërëjëf jaajëf mbokk yeeg xarit dëkkandoo yi yéen ñi ma doon teewlu euh, maa leen di jaajëfal bu a baax di leen ñaanal fetu korite jàmm ak salaam mbokk yi euh, di leen bal ak te di leen ko baalu euh, di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala nangul nu suñu koor ay tam ngi noonu ziar mbokk taalibe yi ziar xarit yeeg dëkkandoo yi ziar mboole seen euh, ñi may teewlu ñi may teewlu waaw ci askanu sunu gaal euh, kuy jullit ku dul jullit bëgg naa ñëpp bàyyiwuma kenn euh, ci siyaar na mboole seen yi nga xamante ne ñi ngi may bàyyi xel nee naa leen doolee jën ndox la waaye ñun suñu doole yéen ñii di ñu teewlu la ba tax na kon faaw rek ñu leen di bëggee Mor Seck ñu ngi koy nuyu. nuyu nañu également Omar Diallo nuyu Aboubacar Dabo nuyu Papa Diop nuyu Bamba Ndiaye nuyu Mariam Dieng nuyu également El Hadji Ba sama xarit bi euh, nuyu naa bu baax a baax Papa caw euh, nuyu bu baax a baax a baax a baax Aïcha Ndom nuyu képp koo xamante ne rek yaa may bàyyi xel waaw fu ngeen mën di nekk ci réew mi ak bitim réew bàcc euh, ci Ndiaye borom États-Unis d'Amérique sama xarit bi maa ngi koy nuyu nuyu naa bu baax a baax borom Japon nuyu naa bu baax a baax a baax Massamba Diop waaw moom it maa koy nii bu baax a baax a baax nuyu également képp koo xamante ne rek ak ngi ñuy teewlu euh, saa su nekk rek comme ni ma koy faral di waxee réew mi daa dëgër réew mi daa dëgër lool lool lool waaye nag réew mu dëgër dëgër dëgër dëgër leen rek mooy solution muy doylu mbokk yi ku ci nekk ci ñun la nga am ak nu mu di toll na la doy bu bu amee rek alaaji lépp baax faal faal bu nit ñi doyloo rek lépp baax doylu rek ñi nga xamante ne ñoo di soxna yi ñu comprendre seen borom kër yi. ko man defal ndax teral sa soxna moom tawfeex la waaye ku ko mënuti tamit rekk waay rekk waay na sa soxna comprendre xam ne jamono ni mel te dafa am ñoo xamante ni ci réew mi fi mu toll nii tembe noonu li ma la wax faal duy caaxaan de faal am ñoo xam ne ci réew mi fi mu toll nii tembe lanu dal mooy lu nu jëfandikoo maanaam lu nu lekk je te le kon yeneen yi nga xamante ni ay secondaire lañ xam nga dafa am fonction principale am fonction secondaire principal bi mooy yow nit ki na nga dund fexeel ba na nga dund kon li nga lekk loolu mooy loolu mooy jiitu kon yi ci des ay solo yenn genre ñaw yeeg solo sax baax na certes waaye yu yenn genre sëfa yeeg yenn genre yi nga xamante ni ngeen koy jël di ko teg ci ndodd yenn góor-góor li nga xamante ni leer na leen nii kii amul li ngeen koy sas c'est juste sama sama dëkkandoo bi rek. Euh, jëkkër ji da koo jëndal lii mu ñëw woon ma ko tey les filles d'aujourd'hui man daal jigéen ñi jaaxal nañ ma ko ci defal dara ku ci sa jëkkër defal dara balaa am jàmm balaa tëdd ci lal daa wër jeeg ji ne ci koñ bi wala jeeg ji ne ci kër gi ku ne mun la ah yow diw ndey saan xoolal lim ma indil biig xoolal lim ma defaral pour quelle région léegi nag bu boobaa indi nga problème yow mi nga xamante ni sa jëkkër am na ba indil la indi nga problème ci diggante ki nga xamante ni jëkkëram amul ak jabaram ak ak ak ak euh, jabaram si si way parce que boo demee ci moom boo boo boo boo demee ci moom won ko li nga am moom xelam da ciy ne tey su boobaa danaan waaw lan moo tax diw jëkkër ji jëndal ko lii te man sama jëkkër jëndalu ko te muy góor muy góor ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ci kër gi bokku sant karang karang ah surtout les wujji peccor go ah bu boobaa indi nga problème bu rëy ci seenub sëy ndax bu guddi jotee dina ko tongal faw lii kii am kii jëkkëram ji da koo teral da koo def nii da ko def naa ana sama wàll ana lii ana laa problème yu bari foofu lay soqikoo ko kon yéen ñi seen jëkkër yi góorgóorlu ba defaral leen ba defal leen rekk waay rekk waay rekk waay def gan leen defaral nay secret seen biir bu mu nekk di wër de gauche à bu leen wër de gauche à di ko waxee lu muy jariñ ah la plu plupart noonu la ñuy def te it problème bi mooy euh, jéeg ju bari léegi dañoo yore xelum gone loolu xalee ko daan def reere soos di wër naan suñu kër soos la reere am mbubb sol ko wër nit ñi gis ko sama papa jëndal na ma yére mais léegi jéeg ji ñoo koy def juste pour concurrence santé seen biir ci biir kër yi léegi nag loolu mooy indi problème ci borom kër yi ku ci gëmul yàlla di nga sàcc mbaa nga njublang mbaa nga lebi mbaa nga def naka sudul noonu wala ku ci ragal sa soxna di nga di nga def naka sudul noonu parce que dañ lay teg pression boo xamante ni yow da leer ni yow am liñ la sant indi ko rek moom mooy doon sa solution kon gars yi nag euh, nañu delluwaat suñu xelwaay xam ni euh, àdduna moom loo fi gis day jeex donc kon yéen jeeg ji yéen laay waxal tey moom yéen laay waxal waaw rek waaye jàppale leen nu rek dimbali borom kër yi nga xamante ne xëy na leer na leen ni kii bëgg na laa defal waaye amu ko bu ko defee boo ko boo ko boo waxtaan ak moom mettre ko à l'aise ni ko ah wax dëgg xam naa ne kat mënoo wax dëgg yàlla teguma la dara baal ba déwén ak jàmm ak salaam xoolal waa ji su fu mun toog day féex xol ba day neex mais boo ko tegee pression na nga ko indi de yow ñaa ko jom sa moroom yi def lii def pour lan pour lan mel ni ku nekk ci salle de classe di jàng école am am yàllaa koy joxe te yëmalewut day jox kii lu bari jox kii lu yem jox kii lu bañ jox kii dara kon ki mu jox lu bari jabari ki mu jox lu bari wala jabari ki mu joxul dara bu xoolee jabari ki mu jox lu bari day indil day sonal boppam sonal sonal sonal boroom këram waaw jaam nanguwul ay dogal day teg coono boppam teg coono ay mbokkam noppal ay noonam waaye jaam bu nangoo ay dogal ah day noppal boppam noppali mbokkam sonali noonam c'est ça mais c'est ça alors kon donc nañu moytandikuwaat bu baax a baax a baax xam ni lii feet la day jeex yeneen feet a ngi ñëw Sénégal feet bu jeex beneen ñëw donc il faut faire très très très très attention gars yi maa ngi leen di jaar di leen jox seen wàcc waaye di leen jox di daje ba suba ak ak salaam ci ngeen jëf.